waa Lamine damay nuyuwaat rek di sant yàlla di dolliwaat sant yàlla di sant yàlla sant yàlla ba mu ñu mayee waajur ju mel nii muy sama yaay jigéen ju mun góor ñun moom moo yar moom lañ xam dela nii ñoo bokk benn koñ fii cité police lu ñeneen ñi di def ñëpp ñun mun nañ ko mais ñun moom moom dañ koy xoolee benn bët boo xam ne ay góor rek la jur te mënoon nañ def lu ñu neex mais déedéet boo gisee ñuy sonn nii moom moo tax barki Serigne Saliou moo tax sànq ba ngeen ne pour mu wax ma ne du wax parce que day jooy te man bugguma di gis sama yaay di jooy ça me mal wallaahi lii nii kenn bugg ko mais ndogal yàlla la ndogal yàlla la ñu koy sante yàlla may delluwaat di gërëm diaspora bi monde entier monde entier laay gërëm wallaahi ba waa New Zealand dañ may woo barki Serigne Saliou di delluwaat di sant ku may njëkk sant muy capitaine Cheikh Kouyaté man chaque jour moom laay jiite waaw Cheikh Kouyaté di ko delluwaat di ko santaat di ko gërëm nga xam ni moom lépp moom la njëkk gis après ñeneen ñi ñëw ñeneen ñi bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñu wallahi waa diaspora bi libaas frère Morlo Toldo di teg nuyoo bi ci Toldo di leen gërëm ñoom ñëpp. monde entier di delluwaat di gërëm waykat bi Faramareen Waali Waali xataluñu benn yoon dem nañ fa du benn du ñaar barki Serigne saaliw Waali Seck yaatal ñu advoisé euro surtout muy njaga njaga ba mu jógee voyage ci ëllëg sa ci ëllëg sa la ñu recevoir mooy nii tey yónnee moom lu mu diggalanteeg maire bi sax dafa ne bu ñu ko génnee ci média bi ndax moom après dina jël hors antenne bi wax ak moom waali woote na fii wax ak sama yaay wax ak jibi at waa chez Europe yëpp gaa yi ñoo ngi nii toog di delluwaat di sant monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye Demba Ka borom Eureka dégg dañuy nëbbatu mais man dama koy wax ñu si jàpp ñëpp. ak ñi nga xamante ne jël nañ seen xaalis ñu jaarale ko sama loxo. waaw suba ñu war ko ànd xam naa ñi dana ñëwaale sax. waaw mu toll un si. ñooñu ñëpp tamit suba dinañ leen remercier fii nga ñu dégg seen tur. waaw at Siteu mbër. Eh, waaw. day nëbbatu. <laughs> non man kuy nëbbatu boo fii gis na ku fi def lu baax am lu baax. merci baat bu gàtt la mais koo ko defalul du ko wax. di waxaat autorité Pikine xoole nañ. ñoom xoole nañ laa ba benn doom Pikine wala ñaar ñoo ci jàpp ñeneen ñëpp dëkkuñu pikin je le dis haut autorité Pikine ñoom suba bu ñu taxanteeg man bu ma leen wax leen lan la ñuy wax lan la ñuy wax te Macky teg leen fi. Macky moo leen fi teg lii nii magi Sall yëgu ko Marème Faye Sall yëgu ko ñoom lii nii xoola xoole nañ ba affaire bi mat ba ëpp affaire mën na ba ëpp bu yàlla di def jàmm rek bu yàlla di def jàmm jibi dina dem ci kàttanu yàlla may delluwaat di gërëm ñu dul doomu pikin te jàpp si ñoo ngi leen di sant di leen gërëm may dellusiwaat ci Ama booy Niang Boy Niang bërki démb la fi jógee. andi na tamit enveloppe Ama ñu dem ba ci Aly Ngouille Ndiaye mu ne man sama combat amagul date mais man lii mooy sama combat pour jibi Aly Ngouille Ndiaye ex ministre de l'intérieur ñu koy gërëm ak jabaram may dellu di gërëmaat waa diaspora bi yëpp. am na ñoo xam def naa kaye kaye 52 pages ñuy Orange Money Wave ñëpp. ñëpp laa bind seen tur am na ñoo xam nag dañuy sàkketu ñu nekk États-Unis gars yi ñoom bu ñu seetaanee bu nekk États-Unis dañuy nëbbatu buggu ñu ma wax seen tur mais tamit loolu dama leen koy may na xaw ma lu tax ñuy nëbbatu dama leen koy may mais ku si mel nii ay Waly Seck Ndiago Euro ministre Aly nguy Ndiaye Cheikh Kouyaté Demba Ka ak jabaram dama leen di wax nii ndax ku def lu baax am lu baax pour Sénégal ñaanal leen jibi dellu di leen ñaana laat ndax fii ku fi def ñu waxoo loolu laay delluwaa di ko wax ndax instant yi damay waxee xol sax barki Serigne saa lu toll ni Pikine 16 communes lu toll ni pikin 16 commune gaa yi ñu ñu dénk Pikine kenn defaluñu dara ñoom lii bu xaalis bu ñu leen jox bu ñu fajul ki ñu tawat ñan la ñuy faj. ñan di dellu di gërëmaat Aziz Ndiaye. Mm-hmm. Aziz Ndiaye dem nañ fa alburaax mu yëkkati xaalis bu bari jox ñu. Mm-hmm. du delluwaat di gërëmaat ay Siteu Ama booy ñaa moom yàlla laa leen di booleel waaw di gërëm Ama Boy Niang Doro gay Doro gay yónnee na enveloppe bi Rama Maki moo ko andi baabooy tamit Baboy Balla Gaye 2 moom dafa def ba pare ne moom lu mu def doyul parce que neen day ruus a ñëw fii ma ne ko jaru ko sam tuddee Balla Gaye 2 dugal na fi xaalis bu bari ba pare nee na moom day ruus moo tax ma ne ko ñëwal yàlla baax na affaire lu ñu doon séentu am nañ ba ëppal ko di delluwaat di sant rek di santaat ñi waa Europe bi xam nga gars yi toog fii xam nga diaspora bi ñoom ba nii ñu ngi yónnee ba nii seen loxo ngi ñëw di leen sant di leen gërëm di delluwaat di bëggee capitaine. capitaine di bëggee sama gars yi ba Jama ay Babacar Babacar Bale moom saa yu ñu taxee mu wax jooy barki Serigne saali mu ne ko yow coo waaw di gërëmaat gaa yi del yi xam nga ñoom saa ñu demee oro ba ñoo ñuy dalal di ñu dëfalaat billaay wallaay ñu bëgg dem sax fa la ñuy kaase toog mooy loolu di leen gërëm rek yàlla baax na jaajaf ñëpp ah. di gërëm ñëpp di gërëm waa Seeoro yëpp maa lim tur muy gaa yi fi nekk ñëpp maa ngi leen nuyu nag gis naa seen taxawaay bu baax mënoon nañ ñëw Marlilu depuis départ ñu ngi fay ñëw si Wally Seck mënoon ngeen ñëw def benn jaar jaar wala war ñu benn kanam mais saa yu ñëwee nag ñu ubbi gis nañ loolu lépp man li may mën a wax rek mooy lu gàtt kuy def lu baax di ko nëbb soo feeñee rek doo rus bu la yàlla fay rek nga am ndam mais dama ko daan jaaraama barki Serigne Saliou tey moom sax du ma jooy que mënu ma lii mais Wally dama koy wax barki alxuraanu karim ba ñuy départ si kër gi laa ne man dem ni ko lii lu waxee dëgg la de du ma dem si ay politiciens duma ci dem ci kenn benn nit laa muy Waly Seck lii lu du ma bàyyi ma fenn jibe ngi nii toog ma ne Waly daal moom mën a fajal am na benn histoire boo xam ne yàgg na ci départ waayam mu tëgg ji woon xaaj bi mu waroon fay médecin yi mu gis ku ñuy génnee këram Waly droité dem fayal kooku loolu bu bu ko waxee moom dina dégg te loolu ëpp na 10 ans xaw ma barki Seydina Mouhamed kooku defaat na leneen ci Jules Baldé ak leneen ak leneen li ñu xamul moo yëkkati xar jox ma xoolal ñaati personne ñoo nekkoon ci ay jigéen ñu nekkoon ci dara lu daralu ba ku ci nekk waali tegal na la de amul bu dee social rek foofu la benn affaire rek lay am ñi fi ñëw ñu ci jàpp muy mbëri ama laay wax booy ñaa ak ñoom ñoom mobile ñeneen ñu ci des muy borom station bu gën a ngand ci Sénégal muy Demba Ka waykat bu gën a rëy ci waykat yi Waly Seck ñoo fi ñëw ak ak kii ni ko managères yi gën a doon managères yi. Ndiago Ndiago Oro sama grand la sama peer la kooku ñun yàgg nañ moom ma yar xam nga ak kan Cheikhou Kouyaté équipe bi moom sax moom ma gën a sax ay Cristiano Ronaldo. kenn du moom barki alxuraanu karim li leen ñaanal yàgg yokk wér Wally Seck sama xol sedd na man moom li ma li ma li ma gënoon bëgg tamit defal nga ba ko muy jibi mii barki Seydina Mohamed fii kenn deful kenn dara waaye lu def lu waay def sa bopp ñun kontaan nañ si yow kontaan naan nag si yow du wax ay kii politiciens yu Pikine nag muy waa maire yi tous gisuñu ko fi man damay wax duñ dërëm wasalaam. am na keneen koo xamante ne ñëw na ñëw bu am doole muy Waly Seck comme ni ñu koy faral di gisee ci moom wala ni ñu koy déggee ci moom ñu ni nit la boo xamante ne day dox ci social te daf mel ni confirmé ne loolu ndax ñëw na seet si Djiby Ama moom ak ay mbokkam moom teewul waaye yaakaar naa ne ñu ko teewal rek mata sa jëmmam. ku mel ni Bira ak ki nga xamante ni moom mooy. Del ak beneen copain Aziz. ah ndongo Ndiaye. Ndonga Ndiaye tout cas daal délégation bu am solo ñëw nañ fii ci turu Waly Seck ñëw jébbal ki nga xamante ni moom mooy Jibi Ama ndimbalam ki nga xamante ne moom mooy biraana moom mooy yor seen kàddu dinañ ko déglu mu wax nan la ñëwee ak kàddu yi nga xamante ne Waly Seck yóbbante na leen ko waaye bu ñu ci jógee tamit danañ waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy yaayu Jibi Ama waxtaan tamit ak ndax yaakaar naa ni bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk a woote woole TV ni ñëw leen ngeen seet ki nga xamante ni moom mooy en Ama ndax 4 ans moo ngi nii mu tëdd bientôt mu def 5 ans 31 décembre léegi mu jot nag am na lu ñu leen waxoon ñëw leen cinq millions lañ soxla waaye bu ñu amee 25 sax jël ndax li ñu doon fere dafa bari trop Bira maa ngi lay nuyu dellu ziar. Euh, asalaamaaleykum wa bi ñu ngi leen di fay yéen ñëpp tey vraiment dañu ñëw fi nga xamante ni muy Pikine. te bu ñu bu ñu di ñu jublu ci di ñaanal nag vraiment ki nga xamante ni mooy jibi mi tëdd avant ñuy wax dara moom la ñuy ñaanal ndax waali daf nañu li may joxe nii xëñ na neex na lool waaye dama bëgg bu ma yegg boo leen yeggee ngeen ñaanalal ma jibi ngeen ñaanalal ma jibi ba mu ñetti yoon ngeen ñaanalal ma jibi fa mu tëdd noonu bu fu boo leen fa jógee buñ ci teg weer ñu ne jibi am na tan ñaan googu nag ñu ngi koy féddale di leen ko wax di sàkku ñaan di ñaan ñun ñu fi toog ñëpp yàlla na jibi fii mu tëdd yàlla na ko fi yàlla jógele ci bu gaaw a gaaw ci jaayu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Pikine yëpp suñu mag Ndiaga Euro ñu ngi koy jiital ci kàddu gi moom it am na ay kàddu yu mu jokkalante ñun mais dana man ak yéen la ma leen sant nag boo leen pare ba pare la ngeen di def parce que jamono neexul mën ngeen dem daje fa ak internet yi. ñuy ñu poser leen ay question mais la ma leen yónni boo leen paree jëlee leen ma yaay jibi ama ci suuf man sama lépp sutura la ngeen waxtaanal ak ma ak moom à part am na ay kàddu yum ñu jokk pour ñu jokkonte ko ki nga xamante mooy yaay jibi ama moom nee na moom loolu à part la c'est le manager de Wally Ballago Seck loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu di ko fédalil ndax lii tamit xëy na dañ cee yem waaye nag vraiment jibi moom dañ lay ñaanal dañ lay ñaanal encore ni ko Wally waxee loolu moo ñu war ñu ngi fi ñëwoon nag di la indi benn affaire boo xamante ni vraiment Wally mu ngi wax ne lii nii tey ji bu tey bu sañoon dina ëpp li nga xamante ni mooy la nga xamante ni moom la waroon teg sa loxo waaye xëj na pandémie bi te moo ko waroon indil boppam nag ah parce que moom doomi Pikine la nee na ma mu ne ma Bira man doomi Pikine laa je suis pour ma dem Pikine yóbbu fa lépp luy teraanga peut-être xëj na nag nii la demee li xew ci jamono bi ku ne xam na ko xëñ na su ma fa demee noonu mais na xool def leen benn kii rek ngeen ànd yow del Pape Lam Sène Ndongo Ndiaye ak euh, euh, Aziz nga jiite leen ñu xaar leen ngeen ànd dem yóbbul ma ko quoi xeeb na ko lool mu doon mu ngi toll ci un million francs cinq cent francs CFA ci xaalis suñu xaalis di la ko jàppale. di wax ne wax dëgg yàlla yëg-yëgam ak tolluwaayam dépassé na loolu ëpp na loolu waaye nag xëñ na lii la yàlla dogal mu ngi lay seet bu baax di wax yàlla na yàlla wéral la fii nga tëri nii yàlla nañ bu ñu fi jógee du yàgg dara ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla na yàlla saafara waaw moom daal ñaan gi la gën a jiital daal nee na koppar nag moom ay kii la rek waaye xam naa ne moom en personne dina toog guddi du yàgg dara mu ñëwal boppam waaw mu ngi lay seet bu baax a baax ñu ngi leen di remercier yéen ñi nga xamante yéen lañ fi fekk di ju teg tamit encore suñu yaay ji nga xamante ni vraiment moom lañ fi fekk voilà kon vraiment daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp yàlla na yàlla fay leen jërë ngeen jëf merci beaucoup waaw som baa ngi nii Wolof Njaay nee na wax day tungoom seedeem Del Péro lan nga ci yokk un million cinq cent la Waly Balago Seck joxe mhm. yàlla bu ko réccu yàlla a mën yàlla nañ ko gën a dégg fu gën a gën a gën a kawe ndax yaakaar naa ne lii moom ku ko defal ji bi tamit ñëpp nga ko defal. dëgg la comme ni ma koy waxee rek man na képp koo xamante ni yëkkati nga sa xaalis jaarale ko sama loxo jàpp naa ne man maa tëdd rek nga defalal ma ko. kon yàlla bu mu ko rëccu. yàlla na ko yàlla fay incha allah. lan nga ci yóbbu salaamaaleykum mbokk internet yi dañ koy xamal ñun sax Bira waxoon na lépp dañ ci sànni tuuti rek Waly moom yàgg na def social nit la boo xam ne day yëngu ku ko xam-xam ne day yëngu ci social quoi. Mm-hmm. vraiment te lim ñu defal nii tamit defalu ko jibi kase parce que jibi mii suñu frère la ñun fi lañ dëkk yaroo fi. Mm-hmm. cité police fii lañ juddoo nii man sama kër a ngi fii tout près xam nga. Euh, li mu def nii defalu ko maanaam ji bi ñun ñëpp la ko defal quoi. Mm-hmm. dañ koy ñaanal rek. xam nga yàlla moo am fay mu fay ko quoi. vraiment jarul la sa wax ji du bëri. merci beaucoup.